salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu mbokk yi tey dama bëggoon ñu waxtaan si benn mbir dégg ngeen jamono ji sa Touba ñu wax ne dafa am ak mag ku am soixante ans soixante dix ans dugg si ab foos foofu si Touba Guédé dañ koy wax ko Fallou Kébé ñu gën kaa xam si Khalifa Kébé Khalifa Kébé moomu sama nijaay la moo ma yar moo ma defal lépp. ba moo ñu may sax soxna doomam jarbaatam ma ngay sëy suñu kër ca Mbàkke boolu Tuubaa Xalifa Kebe ba mu duggee si foos yàlla def ko mu dugal si foos boobu ba léegi kenn ba muy nekk ca kër ga mu nekk fa ab magam ju mu bokkal ndey ak baay ñu tuddee ko Xaadim Kebe Cheikh Ahmadou Bamba Kebe mu nekk magam ñu bokk benn ndey benn baay yarandoo màggandoo mën naan dem amerig di ñëw bi ñu ñëwee Kazu Rajab ñoom ñaar ñu jógee Ndakaaru ñëw si kër gi nekk Guédé di ko defar di ko réfectionné far couvre-feu bi dugg ak sëmi confinement bi ñu tëju Touba toog fa continuer liggéey liggéey kër gi di sa nekk ci loolu la nekk ci loolu la nekk ci loolu la nekk bali xew ajjuma bii daati xew xalifa Kebe moom di fàllu dugg ci fosse bi far dese dafa 19h bi police ñëwee ak sapeur pompier bi leen arrêté ñu génne ko xaadim Kebe moomu nekk na moom ci kër gi te mbokk ndey ak baay am 67 ans 68 ans diabétique sévère handicapé pied gauche ay fer moo nekk si tànk bi maladif police na ko comme yow la nekkoon dañ lay jël yóbbu la entendre la commissaire police bu Touba Bassirou Sarr di sama xarit ma xam ko bu baax a baax a baax a baax mu jël ko yóbbu ko sa commissariat ba ajjuma ba léegi ba mu ko yóbbu foofu mu téye ko ba mu ko téyee sama rakib na ko commissaire kii ngay faral fii il est maladif il est diabétique te jamono ji neexut comme am na fi kër am na fi mbokk bàyyi ko muy fanaan kër ga boo ko waxtu woo ko mu ñëw nga entendre ko parce que nit du baare boole ñaari pen boole ko rakkam bi mbokk ak ndey ak bàyyi dugg si demin demin wu mel nii nga téye ko moom mi tamit di ko entendre si condition commissaire fi la koy téye du ko bàyyi mu téye ko ajjuma gaaw démb altine mu def crise démb si commissariat bu police bu Touba commissariat bi daal tiit jël seen fourgonnette boobu dugal ko ci boole seeg sama benn cousin bi mu loon foofu ñii yóbbu ko janatu wa waa Sowetaas yàlla def mu far gaañu léegi nii muy ñaari mettit yoo xam ne polisu Touba moo ñu teg benn bi tooñ une famille tas ak njaboot tas une famille jël naqar yokk ci naqar ndax bu jëyee amee kenn bu ñu def enquête ñu xam fu tooro yi féete waaye booy def enquête na nga xam na koy defee man li ma xam ci enquête bu accusé nit nit ki am une résidence nga xam ko identifier ko jëru tey si commissariat waxantumaa koo xam ne dafa jagati yar moom neexut xanaa loolu mooy rey nit ba pare mu ñàkk rakkam ji bokkoon rek bàyyi ba nga xam ne bañ amee juddoo ba léegi moom moo ko yar ñooy ñooy ànd suba ngoon kenn mënu leen a xajale nga téye ko mu ñàkk rakkam nga woo ko téye ko dugal ko si commissariat téye ko garde à ko ba mu def fa crise nga jébbadu fa ko réanimation mu décédé gët nga lor ñaari famille loolu laa waxoon dama koy interpellé le ministre de l' intérieur Aly Ngouille Ndiaye un ami un frère ku ma xam depuis Italie di interpellé le président de la République Macky Sall sa fonctionnaire yi ñoom ñoo ëpp li ñuy rey Covid laa la wax. Covid parce que li ñuy rey nii leer na ma li ñu dal nii dal na ay sénégalais yu bare bare bare bare bare bare si réew mi may ñaan le procureur de Mbacké mon ami le procureur TJ tribunal grande instance ñu entendre policier yi entendre le commissaire entendre njaboot gi xool mbir mu nan la demee lu tax ñu mën fa téye noonu xaadim koy ba mu dee si commissariat bi bañ yóbbu ko di ka lagar lagar fu police sa loo xam ne tëguñu ko fenn ñaan njiit réew mi mu wax ñi nga xam ne ñu yor wàllu yoon si réew mi ni ñuy traité askan wi billaahi wallaahi tallaahi covid bi ñuy wax ñoo raw covid li ñuy def rey sa rak dugg si soos décédé amul lu ko gën a metti nga nekk ak moom juróom benn fukki at nga xëy ñu jël la yóbbu la téye la si commissariat ba nga def fa crise ba far décédé fa sëñ bi loolu metti na salaamaaleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakatu maa ngi jégalu ñëpp si kàddu yi fekkee kàddu yi metti na